mais Pape Sarr siyaar naa la. waa buur maa ngi lay fay. mais Pape Sarr. première face to face. Mhm. Modou Xarañ ak ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang suba la. Mhm. première face to face. Mhm. Euh, père ñu ko nag dégg naa ko mu ne père de Gaulle bu may tudd dugg ci biir caayam xaw ma nag loolu muy tekkee. <laughs> waaw koy xaar mu wax. ah waaw père moom suñu père la waaye ñun ñu koy xaar rek mu wax <laughs> na ko yemale ram rek. ah bu ko dépassé. ah suñu wax day sol tubay de fara jeexuñu suñu for suñu wax wëri ji wuñ ko lu leer nañ la ñuy wax mais Babacar te suba nag maa ngi koy wax Pikine waa yëpp képp kuy ñëw ci face à face bi da ngay indaale sajaada jàllaabe ak kaamil mais pour lan loolu Babacar waaw dañ koy indil mbër bu ko bëgg mais Babacar loolu mooy lan tamit yow lamb lamb lamb Babacar lamb lamb la Babacar waaw ñun daal jàllaabe la ñu bëgg a indil sa waay mais est ce que xam ngeen ne que moom loolu waaw mais tamit Balla Balla Gaye 2 du Modou Lo. cest à koo daan ñaari yoon. waaw waaw ma daan ma daan Balla Gaye. mais est-ce que ci gisu leen. favori. yaay favori ci kaw mooy mooy favori ci kaw Modou Lo. mais pour maay favori. parce daan Balla moom Balla Gaye da koo daan ñaari yoon. diggante Boy Niang ba Modou suñuy xool ah Boy ah. Niang mooy favori parce moo daan Balla Gaye bi daan ñaari yoon mais parce que man d'accord ma ci loolu Ablaye. Mhm. d'accord ma ci loolu. waaw ngay bëri roi des arènes ne ne <laughs> ah. moo doon li perturbé gars yi wu ko. Ah. mbër mu baax bopp la. waaw merloo ko yombul ci face to face. Mhm. déconcentré ko ci face to face yombul. Mhm. non li koy merloo yomb na. sol ñëw ak ñëw rek sol sa Ama Baldé. <laughs> ci face to face. da nga bëgg booy moom la bañ a gis su ko gisee fit bi na tëb. xëy na loolu mun na mun na ko tërbi da nga jàpp ne daf koo ragal ah moo am waaye bëreeg booy ñaar dafa mel ni nga bëreeg Ama Baldé la rek waaw benn la rek noonu la lé nun lañ ko tekkee rek roi lay dugg pour yow lan nga jàpp ne que Modou Lo moo tax jëlu Ama Baldé ah lan nga jàpp ni moo tax Modou Lo jëlu Ama Baldé dama jàpp ñemewu ko ñemewu ko mais combat boobu combat combat combat bi dafa bu yàgg ma ni bokkoon naa ko fii buur hmm. su ma juumul am na ñu ma jël maa ngi koy fàttaliku seen combat deux mille vingt laa gëm lay taxaw boobu ñu ngi naan Pape Sarr day wax nii rek. Mhm. mais Boy Niang mën na dégg daal mën a dégg daal ci kanam Modou Lo. Boy ku daan Balla Gaye sa waay bëri Balla Gaye moo gën a dangereux bëri ñii ñëpp. Pape Sarr looy wax nii. bil la moo wala moo ëpp moyen moo ëpp gàllaaj. Mhm. dégg nga moo ëpp supporter moo ëpp pexe Balla Gaye nga ci moom. mais mystique amoon ci Balla Gaye ba ay ñoom ay bopp xaja yooyu est-ce que dina du am. ndax lan Modou Lo ibaadu la. non non du am non Modou Lo du ibaadu mais bu soobee yàlla waxuñu dañuy nekk fanaan ci stade bi de mais li wër bi yëpp dëkk. saraxe jeex na kenn dootuñu saraxe ci lam. buur kenn dootuñu saraxe ci. mais est-ce que booy ñoom ñeme na Modou Lo. ah booy na Modou Lo comme ni ko Ama mooy ba signé guñu face à face guñu dañuy bàyyi ba suba ñenn ñi dinañu sol di sa toog Ama Baldé ñëw ñenn ñi sol jàllaabe ak koppati pour perturber Modou Lo. waaw déggoo ma ne la tisatu Ama rek hmm. nga sol ko jàkkaarloog Modou Lo hmm. dégg nga bu nekkoon kilo liibar lay doon. parce que la moo la booleeg Birane Ndour sama xarit sama doomu nday ñu yàgg dañu fekk diggante Lobaat Fall ak Youssou Ndour. kon du léegi. déedéet du léegi de te xaalis boolewuma ak moom de. su ma gis ndax gis naa léegi. mu jël sa doom bu góor bi. décoré ko may ko xaalis bu bëri man loolu moo ma jaaxal. may ko la. mais buur damay invité nag presse bi yëpp. Hmm. le 26. waaw Khadim Diagne moo woote ak maire Yacine Doucouré. Khadim Diagne men Khadim. waaw Khadim Diagne. ca xayma ga ma Pikine ca Pikine. ñu ngi woo ñëpp di ci woo senegal di ci woo Pikine Khadim Diagne moo woote ñëwal mu defal la teraanga. maa nga fa maa nga fa ñëwal. man nga fa jàpp sa loxo mu defal la teraanga man ni man maa nga fa barke borom woo ñëpp ci xayma bi di ma ciy woo mbër yëpp mm. ñëpp dañ ñëw parce que Yacine Doucouré mu ngi jàppale waa Pikine ah. mu ngi taxawu nit ñi mm. di ko wax booy ñaan na ma jàllale message bi yëpp mm. ñëpp ñëw la benn siis ci xayma bi waaye Birame daal moom sa waay la moom sama waay la mooy invité d'honneur Cheikh Kouyaté sa waay la sama waay la Kéba eh. Kanté sama waay la wallaahi dëgg la sëriñ Masila bu Modou Lo suma waay la. walaay ndeysaan. sëñ Cissé bu sëriñ Babacar Si suma waay la. waaye yow yaay mbokkum réew mi. waaw. waaye suba daal nañu indi jàllaa bi rek kaamil. kaamil ak gisatu amaabal lay. waaw jeex na ak gisatu amaabal lay.